Eh, mbokki jullit yi mbokki taalu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziara di ci jiital nag bu baax sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiir ak it eh, kilifa diine yi ci réew mi yëpp eh, Touba Argentine TV di leen présenté ngan gi nga xam ne moom la Cheikh Ndigal Fall doon gane si mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Argentine ñu doon ko nag ganale mu doonoon bis bu am solo mu wàccoon fi ñetti fan ci weeru avril donc ko ganale ñeenti fan ci weeru avril mu yemoon ak ensemble général bi nga xam ni it euh, moom la fédération daayira Argentine doon def ci teewaayu na kilifa diine yu am solo sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar bu sëriñ Abdoul Aziz Baara ak it euh, mbokk yi nga xam ne rek ñooy jëwriñu daayira yi sëñ ba ak sëriñ maam Cheikh Namar sëñ Bamba boo defee rek kon dañu leen di bàyyi ngeen daal di seetaan euh, dugub sëriñ Cheikh Ndigal ak it waxtaan yu am solo yi nga xam ni it waxtaan na fa. ak ziar mbokk taalibe yi أربعة بخير أربعة بخير بباقي ميران جدار waaw ñu ñu ànd ak teelu ñu ànd ak teelu ñu ànd ak teelu ngeen def ko muy taalibi bu gane si mbokkum taalibeem suñ borom dafa leen ci lu koy seen njot lu taxoon ma teel jël rajo bi nag mooy dafa am lu ma fi dajal muy lu mel ni liggéeyu kër Serigne Touba te ma war a bokk ci jëwriñ yi soññee yàlla yem loo ma ci li ma ci sama soññi sama bopp di wax li ñu def ko li ñu bëgg ñu def ko quatre mille cinq cent waaw waaw yéen a ko waxal seen bopp loolu def naa ko ci liggéey ma ne fekk ngeen ne muy kër sëñ Tuubaa ngeen ñaanal ma may itam nag pas-pas bi ma ci am ak ñu mel nii ci réew mi ñu juddu fi nekkal fi sëñ bi loolu da ciy am solo ñu samp fi samp ñoo xam ne ëllëg bu ñu fi néewal ñoom ñi seenu njaboot di fi nekk di doxal ndax ñaare fu ma dem loolu laa fay gën a samp ngeen xoolee ko démb ci Afrique du Sud ñu ngi koy wax def benn bis boo xam ne nii ca Soweto waa réew ma ñoo ko fay def te nii rek la tàmbale woon ci kenn kooku ak kii sax ñoo bokk tur Abdou Rachid la tudd ak ku ñuy mu wax Moustapha ak groupe mbokki taalibe yi ñu ngi leen di sant ci bi ngeen déggee sëriñ Seex ndigal mi ngi ñëw ci seen bis bi ngeen teertoo ma teral ma ni ngeen ma terale yàlla na leen sëñ Tuubaa teral ma li may wax di leen ñaanal jàmm seen jàmm nag ciw kayit la ne ñi ko amagul yàlla nañ ko am ndax damay wax ni kayit mooy liggéey bi loo am xaalis te amoo kayit amagoo xaalis ndax kayit bi moo lay may jàmm bu fi neexul nga dem fee ndax bañ ne ardullahi waasa dañuy wax ni bu fi neexul nga dem fee foo dem fekk fa yàlla euh, sëñ bi kay moo muy jiite mu jiite daayira bi way juróom danoo bokk kër di fa liggéey te kenn mënu ko kon bu ñëwee fii war naa wane ni maa nga jóge ca ëtt boobu naam ku ne sax ci pëtt nga jóge waaye nag ku nekk da war a feeñal ni nii laa war a mel fii foo xam ni bu la sëb sëriñ betteen doo ci am kersa nga nekk ak taalib bi moom li mu doon wax ni alxuraan di wax lan tanaalul birra xataa tunfiqoo bimaa tuxibuuna ñu ni mënoo am dara li nga bëgg ndara nga joxe li nga gën a bëgg nit nag nee nañ bakkanam la gën a bëgg waaye mu teg ci nag xaalis mii ndax bakkan bi pour nga tere la ko xaalis bi nga koy wute moo tax lii ngeen ma jox terale ma ko may itam mu bëgg koo terale sëñ Tuubaa ngir mu dollaloon ñu ne suñu bëgg ci bakkan boobu ñi nga xam ne dañu koo jox ngir yàlla may xam ni li tax ñoom sëriñ si Mbàkke itam damay wax ni alxuraan dafay wax ni ñoom ñii ñoo gën a yellooti di jox ci asgor su ñàkk te mënta yelwaan yi nee loo koy xamee ni ñàkk na xar kanam ba rek ngay xam ni ñàkk na moo tax fu ma leen fekk ñoom jël ci la ma yor teral leen ci ngir yàlla naam ñoom borom mbokk yu sëq yi nag toujours dañ may yéene li ma yor du ko joxe te joxe koo tax ñu ñëw bu ma dul woon joxe ñoom ñii duñ ñëw ndax dañoo wax ne ku joxe tax a ñàkk ku wat doo saqaat ak ah, tey liñ xamal ñun ci yoon bi mooy jëf damay wax ni dëkk bu ma dem ñama fa am doonte ñett lañ seen pëstéef lañ ma dajale jox ma ko daf may rekk ba ma amati man ko jox fekk def ko sëñ bu leen ma topp noonu nag ndax damaa mënut di woon ne ci daara di yelwaani moo tax lu ma jox rek mu doy li tax may ñëw mooy bëgg nit ñi ak bëgg dafa dafa fort ci nit ndax keroog ba mu jógee bëgg a ca Angleterre ñu bari dañ ma fanaane woo ne ma dimbali nu ñëw lii nag mat na ko lii nga xam ni boo ñëwee sax taalibe yi daje ñu delloo seen diine fàttalikuwaat seen turu yàlla ak seen liggéeyal sëñ bi dafa naa ne bu ko kattan gii man rek na ngeen may ñaanal fu ñu ko soxlaa ma man faa def. waar bi nag moo yaatu waaye su ma sañoon fu ñu ko soxlaa nag mu dem fa waaye fii dafa am cër réew ma amul cër mooy tax léeg-léeg ma mën a jëlal fu barab at la ñaari waaye du tee ña fa ne nañ xam ni sama xol bi mu ngi ci ñoom ndax ak bëgg lañ ko defee te bëgg kenn mënu koo fay. dañoo wax ni diini ñett la. maanaam xubbu ak rajaaw ak xawf maanaam bëgg gi nag mooy jiitu nga am yaakaar teg ca ci li ngay bëgg xaw fu ñëw nag mu jiit ak ragal yàlla ci li ngay def lépp lu ñuy def lu ne nañ ca amu bëgg am ca yaakaar am ca ragal yàlla bu ko defee suñu boroom dajale ñett yooyu yépp delloon na ba tax na ñu ngi leen di sant ci coono yi ak yaakaar gi ngeen di ñu ñaanal ñun ndax dañuy wax ni ñaan bul ni jomb na maa ñaanal kilifa déedéet sëñ Tuubaa sax boo demee ci masaalik danaan wax na ngeen may ñaanal dimbali yàlla na nu yàlla dimbali lii daal mooy kàddu yi nga xam ni ne woon naa naa ko ci barkeelu ci ndigalal sëñ Cheikh mi toog ak bëggu taalibe yi bëgg a dégg kàddu sëñ Cheikh Ndigal Fall ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Euh, ginnaaw nag kàddu yi sëñ Cheikh Ndigal yu am solo yooyu daal di na ñaanal mbokk yi waaye it daal di tàllal loxoom sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar bu Sëriñ Abdoul Aziz Bara mu daal di def ñaan kon nag mu daal di togg ak mbokk yi kon ñu waajal ak édition bi nga xam ne rek mooy déwén bu soobee yàlla muy 2019 incha allah.